alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xadimihi ummati ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit mbokki taalibe yi eh, ñu ngi leen di nuyoo fii ci kër sëriñ Abdou Samad mu sëriñ Sohaybu ànd ak soxna maam Jaara Ngom mi nga xam ne moom la suñu borom def mu bokk ci ñaan gu nangu sëriñ bi ci alxuraan mm-hmm. euh, defe naa ñu bari ci yenn xam nañ ko yàgg koo gis ci barab yu mel nii mm-hmm. daaw ci 2016 musaaba xuraani bi amoon ci senegal ñu def ko ci fukki région ñeent yëpp koor gi ñu dajale ñi ci jiitu <coughs> yóbbu leen dajale leen Ndakaaru moom mii moo ci jiituwaat ci senegal gépp mm-hmm. loolu di ndamal sëriñ bi ñu di ci sant bu baax bañ ca bàyyi amaat na musaabaxa bu am ci Malaisie muy bi sabab ñëw fii tey lu mat téeméeri réew ak ñeent fukk ak benn dajee fa ñépp di ko xëccoo suñu borom may ko ci baaxuk sëriñ bi mu jël ñetteel ba te ka ji jiitu it jël première bi Mouhamadul Mujtaba Diallo ba tey jóge ci réew mi loolu lépp di wane Eh, diggante réew mi ak alxuraan ak taxawaayu sëriñ bi ak alxuraan loolu nag moo tax dem bi nga xamee ne ñëw na eh, ba ñu ko gàttandoo ne lii de ndamal sëñ Sidi Muxtaara ndamal sëñ Tuubaa la kon ndamal sëñ Sidi Muxtaara ñu gàttandoo ko ca héliport dajale sëñ daara yi ca kër sëñ Tuubaa gee ca daarul mën naan nuyoog ñoom ñu sargal ko ñu ne leen nag nañ koy nañ dem sëñ Sidi Muxtaar mii borom ndam li bañ demee mu am ca mbégte mu rëy rëy rëy moo xam ne seedeel na ko ay yoon mbooloo mi ñaanal ko it ñaanal mbooloo mi bañ ca bàyyi ko Cheikh Mouhamadul Mountakha ku ne xam na taxawaayam ak pas-pasam ak it aw toppiinam sëriñ bi moom it ña nga fa bàyyi léegi xam naa ne mbégte ma ba tey jii ku fa dem danga nga ko fekk. daa mujj di wax ne moom li muy yëg sax mënu koo wax waaye nag lu bokk day niroo foofee ca Cheikh Mouhamadul Mountakha fa nga wooteloo di laaj mbiram ñu ne mi ngi fii nga ne kon day jiitu na fa mu war a jiitu jóge ne sëñ Seydi Muxtaar dem na sëñ Mountakha kon nag bu noppee dongab sëñ Tuubaa ngi bu bu ci bëgg a liggéey kon loolu wax dëgg yàlla xam nañ ne. Eh, defet yi nga ni ngi daan def eh, mbooloo mii di yëngatu ci alxuraan day sa jëf du doon gan ci ñoom ak lu mu réyati rëy ndax luñ mas a nekk lu mu doon jiitu nga ci suñ kanam du ñaan nga ci ak ñun waaye jiitu nga ci suñ kanam ci lépp lu mu doon su dee bëgg ak bu dee tiisa te àddina lool rek la ba tey jii lii bi nga ko déggee sa ittey bopp ak sa pasteef négo sax ñu ñëw di ko wax loolu suñu gàttañ lu ak bi mu ñëweek léegi ni mu xate waaye yaay yëg ne sëñ moo ci am ndam te fu sëñ am ndam yow war nga caa feeñal sa mbégte kon noonu la deme bi ñuy toog foofa la ma sëñ Seexu naa mii woo ni sëñ nee na loolu muy dégg ndamal sëñ Tuubaa la eh, bëggoon na caa barkeelu kon day taw feex la ndax ñi gi fii sëñ Muntaxaa waaye su fekkee fuñ fu fu waxtu wuñ mën a ñëw la buñ fa jógee mu ne ah kay loolu amu ci waxtu fekk man xamoon naa ne léeg-léeg am na waxtu yu muy jàpp waxtu yii ci ci la bokk waaye eh, la ma waxoon sëñ Sidi Muxtaar démb ko bi biñ xëyee di yëglu xawoon naa jafe waaye teewul newoon naa ñi waxtu wóor na ma ne waxtu woo ko yëgee da nga ne nañ ñëw ba mu ko yëgee loolu la wax loolu it kon ba tey sëñ Mbàkke nii rek la eh, mu ngi nii nag kii ñu àndal nii sëñ Moustapha Ngom mooy way juram dib mm-hmm. taalibe dëkk fii ci dëkk bi eh, jëkke sax ca daaray muritu mm-hmm. ba jóge ci doon yóbbu rakkam ca kokki ca daara ja dem gis alxuraan ja mu far toog fa mm-hmm. jàng alxuraan ji ba mokkal ko jàng xam-xam ñëw taxawal daara di jàngale suñ borom wërsëgale ko soxna maam jaara mais mu jéem cee delloo njukkal sëriñ bi tudde ko soxna jaara di ko jàngal mu teel a mokkal lool jaar ci jaar jaar yu bari waxtu wu ne lépp lu ci amit la ca gën a rëy lu muy yëg mooy ndamal Touba la maanaam baatub ndamal Touba la jeeg ndamal sëriñ bi moom mooy li gën a rëy ci lépp lu luñ ca mën di jëlee loola mooy li ci gën a rëy ci moom. Eh, ñun nag dañoo sant ci yéen ñii di sëriñ bi bi ngeen ko yëgee noonu boole ñoo moom sagale nii. Mm-hmm. ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax. di ko santit moom soxna jaare ci boppam ci bi ñu ko xamalee mu nangu jëme ci itte jëme ci yar amut geneen bëgg kee mooy way juram wu jigéen waxtu wu nekk sëriñ Moustapha mii kilifaam day seede ne lu mu am rek yaakaar na ne mën naa am lu ko ëpp ngir ak nangoom ak pasteefam ak taxawam ci gannaawam ba tey it ma ngay sàkkuwaale ñu ñaanalaale ko ca loole ba lépp luy war a doon gàllankoor boo dox digganteem ak liggéey bi suñu borom booy leen ci musal te musal ci ñun ñëpp daanaka yow buñ fi ñëwee dañoo mënta ñàkk ubbi waaye daara moom du du dara lu ñu la ciy wax ah, ndax fuñ nekk dañ la faa nekkal eh, waxtu ne nii mu demee nii rek ah, saabu lu mat a jóg jógee doo nekk la ca woo soo ko yëgutoon waxtu wuñ la ca woo it saa boo jógee da nga dabe ah, yàlla na yàgg bu baax nag ñu ngi sant ci taxawaay bi. ci turu mbooleem kuy jàngale alxuraan ñu ngi lay ñaanal fan wu gudd akuk wér di ñaan suñu borom yokk la bu baax ndax yow kat sag yokkute yokkuteeg lislaam la yokkuteeg yoon wi la ndax lii nii xam nañ ne jubloo ci daal lu dul dolli sëriñ bi ndam rek gone ga gañee ca alxuraan ja tuubaal la dëkk waaye ba mu demee njabootu Sëñ Tuubaa ga teral nañ ko xam nañ dara gënu koo rafet xam nañ ne moo la ci indi nii waaye yàlla na ko yàgg taxawee barki sëñ Tuubaa yàlla na yàgg yàlla na yàgg. bisimilah soxna si. waaw ah, ñu ñu ñëwal nii jàng. Ah, di kaamilu kay allah akbar. addi alquran dégg nga. Mhm. Mhm. Mhm. ko ngaa daal na toog. wa barakaatu. salaam wa rahmatullahi ngi leen di delloo am nuyoo. di leen dalal ci barabu alquran. di kër Cheikh Souhaïbou Mbacké. Mm-hmm. te bokk ci këri Serigne Touba yi. Mm-hmm. te Serigne Cheikh Ahmadou. Mm-hmm. nekkal fi Serigne Sidil Muxtaar mi. wuutu ko ci barab bi. di leen sant bu baax it ci nii ngeen gàttandoo mbokk mi ak nii ngeen ko terale ñu gëm ne lu ngeen ci def noonu ngeen ko defal ndax noo ko waroon def hmm. kon kàddu yi may wax hmm. ci turu ñëw bokkal Sëriñ Tuubaa ñëpp laa koy wax hmm. kàddu yi nag weesuwut sant rek santaat Sëriñ Tuubaa te gëm ne la Seex Muhammadu Musaa waxoon ne lim ma wax ba ma teg sama bët. Mhm. li ma wax te tegaguma sama bët. Mhm. laa gën a gëm ca loola. est-ce que. loolu muy firndeel. Mhm. moom gi mu mool alxuraan ak li ko suñu borom defal. bis bu ne day gën a leer ci nun di gën a firndewu ci nun nun nag dañoo jàpp ne alxuraan lu ci waaye di def rek nun ko ko defal. gannaaw bi ko sëriñ bi moomee. waaye que sëriñ bépp def ko muy seenub tool di ci xëy. sëriñ champs bi moom sëriñ bi da ko ci xaasaloon xaasi boppam. daf ko ba mu ñëw. mu teral ko teraanga ju rëy. Mm-hmm. ne ko li tax ma teral la teraanga ji. mooy mm-hmm. bëgg nga fonkal ma alxuraan. est dénk ko ko moo taxoon yemaliwu ko dara. Mm-hmm. def ko liggéeyam. muy guddi muy bëccëg mi ngi ci alxuraan. ba résultat yi mu jur ñëpp gisandoo nañ ko. kon tool boobu nag ku ciy bay ku ne jàpp nañ ne. ci sunu tool nga ne. jaajëfal la noonu la war. kon Serigne Moustapha. boo taxawee taxawaay bu rafet bii ci soxna maam Jaara mi ak waajuram wu jigéen wi ndax itam luñ koy sant yi nañ leen ko sant yéen ñaari waajuram yi ko jàppale ba mu egsi fii bu dutoon yéene du mën a egsi fii bu ngeen ko taxawee ba mu am ndam lii ci àddina sépp mu am ci troisième position loolu ci Sénégal ndamul Sénégal gépp la ndamul Afrique gépp la waaye nag ndamul Sëriñ Tuubaa ndamul yoonu murid wépp la waaye ñun ñi nga xam ne nag ci alxuraan la ñuy dund. Mm-hmm. mooy sunub liggéey. Mm-hmm. ci lañ fekk sunu bàyyi di ko def. ci mm-hmm. ndigal Sëñ Tuubaa. jàpp nañ ne noonu ndam li noo ko moom. wala kenn ëppale wuñ ko moom. ba tax na. lu rëy ci nun la. lu sedd suñu xol la. loo xam ne mënuñu sax mënuñu sax mënuñoo sore sax ci wax ji ndax. rëy gum rëy ci nun ak sedd gum sedd suñu xol. ba tax na daal ci turu njabootu Sëñ Suhaybu bu gi nga xam ne. alxuraan yi seenub liggéey. maa ngi leen di jox addiya mm-hmm. ñaari billet màkk yoo xam ne mm-hmm. benn bi teg naa ko ci loxol soxna maam jaara mi mm-hmm. moo xam ko ko soob nu mu ko bëggee waaye moo ko moom bi ci desit Mouhamadul Moustapha ma ngeen wax Moustapha Diallo waaw waaw jàpp nañu tool bi moom foo waaye mën na ne tabay rek Sëñ Tuubaa la koy bay moom moomee itam uh-huh. bi ci des jox naa ko ko ñaar yëpp danaa ko ci doxal texal loxol rabita bi ci biir koor gi. Mm-hmm. ñu wax nañ koy doxale ñoom ñu teel ko xam. waaye soxna maam jaare yaay bunt bi. Mm-hmm. ceew laa ko jaarale. Mm-hmm. am nga billet Makka boo xam ne maa ko joxeel njabootu kër Sëñ Sam bi gi nga xam ne. alxuraan képp ay seen liggéey te Sëñ Tuubaa leen ci tool nekk loo woon. joxeel ko it ñoo bokkal Sëñ Tuubaa ñëpp. est-ce que Mamadou Moustapha it noonu. kon lew na leen doom seen addiya. di ñaan nag. yàlla defal ngay mag. te mucc. ci seytaane ak cat. ak lépp luy lore. amiin amiin amiin fi nga bëgg a àggale sa liggéey nga àgg ko fa. amiin yéen borom fay leen ci taxawaay bi ngeen taxaw yéen waajuram. ak mboolem rabita beeg suñ daara yëpp. ak bokk yëpp. li li li li li ci waay def rek suñ Tuubaa nga ko defal. Mm-hmm. nag mm, maa fi war a nekk di di jotali cant yi. kon nag nan ko ànd rek ba faaw. incha allah di sant di gërëm ñëpp. alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërë ngeen jëf jërë eh, islaami xayral jasaa yaakaaruma ne wax nañ ko ku la ko gën a yeeyoo kon liñ doon junj lii firndeel na ko eh, matuk jëfi sëñ Tuubaa it nga ci feeñal tàmbalee ko ci moom mii àggale ko ca ma mam àndaloon te gisoo ko waaye xam ne ginnaaw dafa liggéeyal alxuraan rek sëñ Tuubaa ko war a añal lu rafet la yàlla na yàgg incha allahu des na leen ci boole taxaw bu baax des na leen ko jotal it na ñoom ña fi nekkut nañ ca war a jote incha allahu jërëjëf Mbakke jërëjëf hectares yi am jàkk ci